jàngoro yi coronavirus taxna ba tukki ci réew ak réew yombatul ginnaaw biñu ñu seni seeni bunt réew yu bari di laaj ci képp ku fay dugg wane ni amuloo feebar bi lëmbee àdduna bëgg méngoo ak doxalin bu bees bu ni mel tax sénégal digal képp ku bëggatee tukki nga def test ci ñetti bërëb yu mel ni institut pasteur irsf e hôpital le dantec wala sax hôpital militaire bu wakam ngir bëgg leen xamale ak nu test yooyu di demee dakar actu seeti pôle IRSF bi nekk ngoor bi ñu ko ubbee ak léegi yàggul sax waaye ba ñu yegsee fekk nañu xaat nit ñi tàmbalee bindu ngir mën def test ci anam bi mu gën a selle dinañu la laaj sa passeport ak bis bi nga war tukki ak réew ma nga war jëm ak yan test lañu fa soxla ginnaaw gi di nga am loo warloo ak ñoom ci wàlli koppar bu dee ci sénégal juróom-ñetti junni la bu dee test bi wane ni am nga wala amuloo jàngoroy coronavirus ngir mën a dékku li fay ñëw ci aw nit IRSF jël ay matukaayam fii yéen a ngi si centre de prélèvement bu IRSF fii kalaa nga fiy dugg da ngay takk masque moo tax ñu def fii le port de masque obligatoire ba pare dañuy désinfecter sa loxo ba pare nga doog dugg si biir que ce soit patient bi que ce soit le personnel technique fii boo duggee si biir am nañ fi ñaari salle de prélèvement yoo xam ne dafa am ay différents box pour que ñu mën a respecter mesure barrière yi kenn bañ a wàll morom léegi boo duggee si biir salle bi mooy salle bu njëkk bi boo duggee biir salle bu njëkk bi am nañ fi ñaari fii mooy salle bu njëkk bi ñu tuddee ko salle 1 léegi boo duggee si salle bi am nañ ñii ñooy personnel technique bi nga xamante ne bi ñoom ñooy def liggéey bi boo ñëwee ci salle bi ñoom ñoo lay accueillir enregistré la salle de prélèvement numéro 2 légui fi tamit boo wé comme niñ ko mëna gissé ñu fi fekk ñaar ba ñetti prélèveur pour nit ñi bu ñu ñëwé ñu baña nekk di xaarante boo yegsee fi tamit am nañ fi ay ki def distributeur de gel pour nga désinfecter sa loxo du duggaatee si biir salle bi fi lañ lay accueillir defal la prélèvement. si le mom ab artiste la bëggul ñu wone kanamam mom nee na dafay wàjj delu France. moo tax mu ñëw def ci test 라면 라면 라면 리 사이티 자, 뭐. jeex na bu sañoon nag ñu def ci mbir mi ak woyofal. waaw mais affaire bi daal bàyyi bu nga dëgg-dëgg metti na quoi métti na ci ñëpp àdduna dañuy xool ñi ci suuf ñu jëma doon ñëpp ko benn dimbalante test bi am na ñoo xam ne mënuñu ko man ni mu gën a métti rek la ñu tubaab bi tegal buntu yi moom a gën a metti li ñu tubaab yi tëjal bunt yi moo metti bàyyi Maroc bàyyi ñu sénégalais yi ñu téñu ñu waaw affaire boobu daal xaw na metti daal mais na gaay yi xoolaat te test bi cher na nañ dimbali gaay quoi. tala Sall mom di gungé mbokam mi nga xamni dafa wara a italy ñew def ci test. japp na ni bu dé ngir luy tax fébar bi dellu ginnaw la jar na ko. ak lu mu ci mëna doon nit ñi mom test yi yitel na leen likoy firndel moy biñu tambalé ak légui Paul IRSF bi nek ci Ngor dina dalal bis bu nekk lu tollook téeméeri nit loolu lañu docteur Pape Alassane Diaw xamal biologiste bi moo yor lépp luy jëm ci wàllum laboratoire ci IRESSEF ak lu nit ñi bari bari docteur Diaw xamle ni jël nañ matukaay yépp ngir bërëb bi méngoo ak li muy wuyoo matukaay yooyu sax moom moo taxoon moo moo waraloon extension bi parce que dañ ne nit ñi waruñu boo xoolee saisi ni ñu ko tegantee dañ def ne nit ñi waruñoo jegeyantoo nit ñi bu ñuy ñëw war nañu sol masque bu ñuy ñëw war nañu jël seen température war nañu def tamit gel hydroalcoolique donc boo xoolee balaa nga dugg ci buntu bi danañ la jëlal température te danañ la tamit jox gel pour nga def sa loxo danañ xoolee ndax sol nga masque nga doog dugg ci biir boo duggee da nga fekk ñun ñëpp gant la ñuy sol ñii masque gant masque ak équipement équipement yi moom vraiment ñëpp koy sol boo duggee si biir tamit même chose donc vraiment faw boo fan boobu jël nañ ko suñuy matuwaay bu mat sëkk et que ñu fi ñëwit dañuy respecter distance bi et dañuy def de telle sorte que nit ñi daal duñ fi dajalo wa te it liggéey bi gaaw na gaaw na gaawaay boo xamante ne nit ñi duñ am temps dajalo fi voilà. gaaw bobu tax ku def sa test mën nga jot ci résultat yi ci ëlëk sa. parce que délai bi sax ñun dañ ko fixé ak ministère de la santé 24 heures ku ñëw tay su ëlëk sa nga ñëw jot sa résultat ñen rek ñoo ñuy xawa jaaxal ñi nga xamanteni ne yëguñu ko dem ba aéroport ñoy leen indi leen test yi. Nous avons a ñëw nous avons résultats. tukki tey résultat nous parce que pour les leen nous toujours des problèmes. mais quand même nous nous euh, dañu des résultats, nous avons ne ñoom résultats. Euh, nous mais nous des choses résultat mais c'est des tests coûtent ça coûte très très cher

loolu tamit ministère réfléchir na ci ak ñun ba euh, li ñu wax mooy que ku ci am cas bu positif dañ lay daal di dugal ci programme ci circuit bi c'est-à-dire que dañ lay informer jox la sa résultat ba pare ministère informer ministère ministère informer district bi pour que mu jël la en charge donc médecin chef district ba nga dëkk moom moo lay continuer di la jël en charge pour suivi bi donc euh, côté boobu moom amuñu si problème. waaw mais nag tout dépend am na si ñoo xamante ne nii nag dañuy euh, bu dee pays bi euh, avion bi ngay dugg exiger wuñ lako pays bi ngay dem laajuñu ko amna na si ñoo xamante même bu leen joxé seen résultat yi dañuy dem mais lolu dispositif la bu ñu jël au niveau de l'aéroport pour que nit ñooñu ñu bañ leen a ñu dem lu mu soxla bi jàmp jàmp jàmp bu doon ñoo xamanteni dañ leen suivre fi ba xamné ñi wër wér na ñu doog dem parce que dafa baax sax ci euh notoriété Sénégal que ñi joggé fi mu doon ñoo xamanteni vraiment ñu ñu sain lañ. ñoo xamante ni bu ñu demee foofu ñu testé leen dañuy négatif mais bu fekkee ku jóge Sénégal bu demee foofu ñu testé ko mu positif loolu baaxul ci ci deru Sénégal donc moo tax war nañ jël ay matukaay foofu de telle sorte que au moins ku fiy génn ñu defal la test ba nga xamante ne fa ngay dem it bu ñu la defalee test dañu xam ne yow mi ku négatif nga